Hi guys, how are you doing? Hope that everybody's doing great. It's your brother Gumba Jao and welcome back to Apron de Langawolof. In today's lesson, we are going to talk about some common mistakes in English, okay? Some mistake that we we found that English learners make. Okay, so let's talk about it, but don't forget to subscribe guys, learn, share and like. Okay. ok the first one bi ci njëkk mooy ah, gars yi dañu faral di wax maan people is people is kenn du ko wax mais people are parce que people maanaam mbooloo la donc pluriel la donc kon ah, verbe bi bu kon defandi war a nekk are donc boo war a remplacer people da nga naan they they are ok so kenn du wax people is but we say people are ah, okay people are happy there are many people next one is am agree gaa yi dañ faral di wax am agree but we don't say am agree but we say I agree ok so ah, ci bëri nag les francophones speakers les francophones dañ ñoo noo dañ koy jéem a natte ci ah, français xam nga en français da nga naan to be être d'accord donc on dit je suis d'accord avec toi avec vous donc mais anglais we don't say am but agree verbe boppam na to agree wala to disagree donc I agree with with you mooy je suis d'accord avec toi I agree but we don't say I'm agree. Next one is I'm waiting you. I'm waiting you. Okay, so boo xoolee ne am na lu fi mooy for. Donc with the preposition we you have to put it before waiting and you. So we say I'm waiting for you. I'm waiting for you. mooy maa ngi lay Bëgg Aloem maa ngi lay xaar. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Okay, guys, so don't forget to subscribe. Okay, so I lost the bus. I lost the bus. fa bëgg wax na maam daal euh, bis ba raw na ma bis bi maam bis bi na ma bis bi dem na sama moom comme waroon nañ jël transport bi daal di ta daal di daal di kii euh, nga naam da nga retard wala yu demee noonu donc bis baraw la ok so but we don't say maanaam fii waroo verbe bi nga tànn mooy tout lose mooy waruñu ko jël boo leen xoolee ne prétéré lañ ko conjugué simple past moo tax mu ne lost but we don't say I lost the bus but we say I missed my bus kon donc kon I missed my bus lañu my bus lañu wax mais je wala You raté le bus. OK. J'ai manqué de I missed my bus. I missed. ba tey missed bi di kat wax miss it mais ah, vi bi dafay mel ne tii nekk I missed. I missed my bus. Next one is everyone are happy. Everyone are happy. It's not correct. The correct one is everyone is. So we have to use is instead of happy. Okay, so don't say everyone are, but everyone is because everyone is singular. So you have to put is. Même français da ngay xool ne tout le monde tout le monde est nangam. On tout le monde est content, tout le monde est content. Everyone is happy. Tout le monde est là. Everyone is here. everyone is happy mooy ñëpp a kontaan ñëpp a bég so li ñu wax mooy everyone is but not everyone are next one is I'm going to home I'm going to home it's not correct so you have to omit the two don't put it okay just say I'm going home maa ngi dem ci kër ga I'm going home okay am going home maa ngi dem ca kër ga ca kër ga laa jëm I'm going home now donc kon to bi du fi ñëw parce que home euh, ci bëri moom du ànd ak euh, préposition to voilà xam nga kon direction la comme français nga naan je vais à la maison je vais la mosquée je vais marché ok so man nga ne en français ah, en anglais I'm going to the house ba tey wala nga ne I'm going to the market but we don't say I'm going to home wala to the home ok donc kon just say I'm going home waaye nag boo nekkoon ci kër nga su je à la maison je suis chez moi we say I'm at home okay but we don't say I'm going to home but just say I'm going home next one is he speak English good he speak English good bu leen xoolee ne speak am na s bu fara nekk waaye tamit good kenn du ko wax parce que adverbe lañ war a am bu leen xoolee ne good adjective la ok so the the correct one is he speaks English well bien l'anglais ok he speaks English well next one is you are happy you are happy bu doon xoolee ne dafa mel lu koy laaj da koy laaj ndax ndax ngaa bég tu es content et tu content xam bu dee ci yeneen langue peut être mën na nekk comme ci français tu content ça ne va ci kii bi ci waxin bi dana xam ba laaj la tu es content ok mais anglais kenn du ko du mën a ñëwee ni nga inversé to be bi maanaam verbe bi mooy jiitu sujet bi donc are you happy ngay wax are you happy Abdou But you don't say you are happy. No, we say, are you happy? Okay. Next one is, I know him good. I know him good. bu leen xoolee na ba tey ah, good bi ah, adjectif la donc te ah, fii nii donc adverbe lañ war a have to put the adverb okay instead of using the adjective Good. Okay, so you say, I know him well. I know him well. ba tey kenn du ko dawale ci pronunciation you don't say I know donc the ka is don't say I know him well mooy xam naa ko bu baax je le connais bien bien I know him very well ok I know him well but don't say I know him good At last but not least is I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. Xooleen xoolee ne than biñ ci dugal moo ko yàq donc tu nga war a am fii booy wax ci anglais wàllum préférence donc nga am ñaari euh, ñaari non voilà donc kon booba nga am verbe prefer donc après tu moo ñëw I prefer tea to coffee mooy loolu mooy lan ci maam daal Ataaye euh, a gënal kofe dal ataaye la gëna taamu moomla gëna bëgg ci kofi ci kafe dog we say I prefer tea to coffee I prefer okay I prefer Abdu to Tafa I prefer Aminata to Roqaya okay etc so we say I prefer tea to coffee but not I prefer tea than coffee. That's all guys. Um thank for watching. But don't forget to subscribe. Don't forget to ah. like, share. Okay guys, I'll see in the next one. Take care.